maa ngi tudd Seynou Ly nekk coordonnateur Pastef Médina euh, tey dinañ dalal ci euh, kër gi nga xam ni fala suñu présidente euh, mouvement des femmes jigéenu Pastef Médina dëkk comme ni nga ko waxee li sabab daje bi nag mooy benn opération boo xam ni jigéenu Pastef Médina ñoo ko lancé woon mu di ay collecte de de denrées alimentaires ngir. taxawu euh, néew di doole yi nga xam ni dañu nekk ci commune bi nekk ci gox bi ñu dëkk ndax euh, te loolu day dellu ci suñu philosophie parti ndax Pastef foo dégg Pastef ci wet bi ñu ngi ci teg don de soi pour la patrie te xëy na dañ nekk ci jamono jamono ju métti mais dafa am loo xam te ni dafa nekk valeur bu essentielle ci suñu société te mooy partager bokk te bés yu mel noonu lu mel ni korité ak euh, yu ni mel xëy na ni ko ñenn ñi di paase ak seen famille ba yàlla dimbali leen ba seen lépp mat wala lu ëpp ci li ñu soxla mat amaana am na famille yoo xam ni ñoom demeewul noonu seen doole euh, seen loxo jotu seen ginnaaw ñu ne kat nañu dajale suñu ay dërëm ak suñuy ñaar dërëm euh, jënd denrée yi nga xam ni euh, moom lañ fi moom ngeen gis ñu doon defar sànq jigéen ñi porté ko ndax ñoom vraiment affaire bu sens dañ ci am sensibilité ndax ku ne xam ku wax jigéen wax njaboot. ni muy xalaatee njaboot xalaat kër rawatina ci bës yu mel noonu moo tax ñu dajalee euh, denrées yi nga gis euh, fas yéene ko distribuer à 200 familles donc 200 kit la ñu fas yéene cette euh, famille 200 familles yoo xamante ni incha allah ci biir commune bi dañu leen ko fas yéene fas yéene jox ak trois daara yoo xamante ni itam war nañ fa yóbbu li nga xam ne moo di moo di denrées yi. 200 familles est-ce que mën seen parti la wala am am am ci xaaj ak seen. déedéet amuñu ci xaaj ak seen parce que ndimbal moom soo dee dimbali doo seet ki nga xam ne dafa soxla bokk ci wala déet boo dee jaamu yàlla euh, amoo ci xaaj ak seen te Médina on est tous une famille euh, considération politicienne yi moom day ñëw après mais lii wàllu jaamu yàlla la wàllu dimbalante la ci diggante nit ak nit ci diggante jullit ak moroom ma ci diggante ay dëkkandoo ndax ñu ñëpp Médina lañ dëkk xëy na lu la nit jàmbatul soxlaam mais ñun ku ci nekk fi nga dëkk xam nga bu baax a baax ñan la yàlla euh, taxawu ci seeni soxla ak ñi nga xam ni xëy na seen loxo jotu seen ginnaaw donc mu nekk kit yoo xamante ni c'est destiné à toutes les familles donc waaw denrée yi booy seet pratiquement li ci ëpp mooy euh, li nga xam ne moom la ñuy gën a jëfandikoo ci euh, feet yi mooy pomme de terre huile Euh, soble euh, ak laaj donc euh, mooy set pratiquement moom la ñu gën a utiliser ci ci fête yi donc ñu fas ni ko jël jox ko à ces à ces familles ak ak ñett daara yooyu noonu ñu ciblé. waaw montant bi donc bi jigéen ñi defee seen xayma budget bi mu ngi tolloon ci cinq millions et quelques xëy na yàlla def na ñu budget boobu mais def nañ suñu kéemtalaay kàttan ba au moins atteindre nañ les deux cent familles. donc euh, euh, xëy na ni jamono tëddee la mais wax dëgg yàlla jigéen ñi ñu jàmbaar lañ ndax gérer nañ collect bi ba lu ëpp ci budget bi euh, donte ni mataluñ budget bi mais lu ci ëpp am nañ ko ba mën a def lii tey vraiment ñu leen di jaajëfal et occasion la itam di remercier ñi nga xam ne ñoo contribuer parce que ay militants lañ ñi nga xam ne c'est des militants bokk ci Pastef Pastef Médina ñoo yëkkati seen dërëm ak seen ñaar dërëm joxe ko ñii ci cellules yi. Euh, mais itam ñi nga xam ne ay sympathisants lañ am na ñoo xamante ni vraiment bi ñu gisee activité bi jàpp nañ ni lii jaamu yàlla la ñu jël seen dërëm ak seen ñaar dërëm dugal ko ci donc ku ci nekk li nga ci joxe vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm xamal ni Pastef Médina par ma voix et au nom de de toutes les femmes de de Pastef Médina vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal luñ ci am ci yiw ak ngëneel vraiment ñu ñëpp ñu bokk ko. pourquoi daara yi nag parce que bon daara dafa nekk loo xamante ni c'est un milieu euh, boo xamante ni. day dajale mbooloo yu bari xëy na souvent nit ñi duñ leen di bàyyi xel mais yow boo xoolee par exemple benn famille yenn besoin yi muy am donc asamaak nag kër goo xamante ni dafa dajale ay xale yu bari donc ñooñu seeni besoin ah, yaakaar naa melu ni besoin benn kër rek donc moo tax tout le temps ñuy bëgg di leen bàyyi xel ci suñu activité et que euh, itam ci ci gis-gisam ak ci doxalinam composantes yi am ci société bi yëpp dañu bëgg di leen inclure di leen di leen bàyyi xel ci suñuy ci suñuy activité li waral daje bi tey euh, daanaka suñu coordinateur presque wax na lépp euh, dañoo nekk ci weeru koor mu nekk euh, weeru bànneex weeru mbégte mais weeru partage aussi donc ñu nekk ci parti bu mel ni parti Pastef ñëpp xamee ñu ci don de soi maanaam di jël ci dara si ñun di ko jox suñu morom di di dimbalante donc looloo gën a poussé ñu xalaat idée bii nii ne ñu ngi jëm ci weeru koor euh, jamono métti na kër yi neexul donc euh, boo xalaatee sa bopp rek toog xëñ na amaana yaa ngi ci erreur donc ñu ne nañu nañu jéem a seet naka la ñuy def ba dimbalante suñu biir Médina lañ nekk euh, xam nañ la réalité de la vie yombul donc nu ñu mën a def rek ba jàppalante boole suñuy dërëm ak suñuy ay ñaar dërëm xëñ na dina mën a jur dara te di ci di ci jaajëfal nag ñëpp nag parce que boo xoolee ba xool lii en 15 jours lañ ko lañ ko collecté euh, avec les euh, li xew-xewu jamono yi tax na ba on na un peu tardé à lancer l'activité donc moo tax tey gii nii ci en quinze jours la ñu am lii on aurait souhaité avoir plus mais euh, ñu ngi ciy sant yàlla ndax patriote yi moom ñëpp xam nañu dañoo xër lépp soo waxee lépp loo xamante ne jëm na ci dimbalante jàppalante rek dañ ci dañ dañ ci sawar dugal seen loxo donc looloo waral bés bi tey ñu ciy santaat yàlla bu baax a baax a baax ci di ci gërëm patriotes yi sympathisants yi képp ki nga xamante ne daal euh, dégg nga collectif bi nga jël sa li nga xëy na yéene yi sax xëy na ëpp na mais nga jël sa li nga xamante ne xëy na boo ko joxee du la gaañ nga def ko ci euh, ñu ngi la ciy gërëm voilà. salaamaaleykum man maa ngi tudd Fatima Ly euh, vice coordinatrice PASTEF Médina mais tey damay ñëw en tant que adjointe Mojib bu Médina. Euh, conseil euh, par rapport ak euh, tey journée bi ñu bi ñu bi ñu dëgmal nii ñëwoon fi tey dajaloo pour mën a dimbali ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw noonu pour codité bi donte lépp motewul sax mais jéem nañu pour joxe as ba nga xamante ne dina xaw a même fekkee bu lépp motul tamit moitié bi dina tane collecte bi du ma ne metti na parce que diir bu gàtt lañ ko def ab yaataluñ ko sax xam naa ne amaana buñ ko yaataloon niñ ko bëggee woon dina fa demee mais euh, malheureusement si diir bu gàtt lañ ko xalaat def ko ci diir bu gàtt gaaw ko tënk ñoom ñu mën ci jot avant jour euh, J moins un moo taxoon affaire bi ñu xaw a koo gaawal mun naan dañ ko xaw a dans la précipitation lañ ko def mais comme que c'est une première xam naa euh, prochaine fois dina gën a kii yaatu incha allah rabbi ñuy remercier ñëpp nag di leen jaajëfal ñu ci jàpp de près ou de loin pécuniairement ak physiquement ñu ngi koy rafetlu parce que franchement ñaar yëpp ñoo mën a ànd pécuniairement physiquement doole bu bu boole woo affaire bi mën a yemb maa ngi leen sant di leen gërëm